بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من اتفق العرب بأمينه قبل رسالته والذي بعيسى ليتمم مكارم الأخلاق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيد مصطفى asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi lay jottali nuyoo bu tedd bu màgg jégu ci ko tedd ku màgg di sa waajur ci diine waaye di sa waajur ci ci deret muy خليفة جنرال دي مورد شيخ محمد البنتخا حفظه الله ويده ونصره دي وقت رك موني في جبل جناو بي في سانداو نيبي موي امام مالك مبي دي اندي بتاخلو غامو بي كروك بي مكو جوخي سيرين بي bi mu ko xoolee ba noppi lam ca teg mooy wane ca mbégteem ndax yëg gi nga am ci moom ak nangul gi nga ko nangul ba tax ne mu ne daan nañ fa yeble ndax bërëb ba sama bërëb la want nag dama bëgg balay gàmm kuy jot am na yeneen ndaw yu ma fay yebal mu ñaareelu ndaw boobu dama bëgg nga àndaat ak ñoom ndax barab ba yow laa fa baaxoo di yónni mel na ni yow leen gën miin kon ñi ma fi yebal bu ma sayoon da nga bokk ci ñoom muy sëriñ Cheikh Baara mu sëriñ Abdul Ahad mu sëriñ Baara naka jekk moom la fi daan yebal bi yoon nag mu ne naa ko gunge ñu ànd ñëw keroog ca alxamis ginnaaw bi ñu jógee ci loolu itam mu waxaat ma ne bés bi nag ni nga ko daan baaxoo defe maa lay wax ne nanga dem sa wetam nga wettilil moo ko ci jotaay bi waaye ak lii lépp nag mi ngi ko jaarale ci ki nga xam ne mën nañ wax ne mooy soldaaru xadratul xadimiya دي شيخ محمد البشير مو شيخ عبد الخادر مخدم رسول بما نيو وقتان نان ما سوغو نيو مو بيرل بو باخ بومي تام ييتيم تي يو اك تافيرم تي يو نينكو امي تي موم با نيب خامكو مو كاي فيد لول باخ دي واخني مي ngi lay sédel ne itam moom sëriñ basiru màggal gi dey sa njaboot ji fi ñëw di délégation bi nga koy tànnal muy imam Malik ak ñi muy àndal bu ñu ñëwee dey ni leen ko sante dara du ca des yóbbante bi ngi leen di jox mu war a àgg ci sëriñ bi dara du ca des taxawaay yañ ci war a def duñ sonn benn yoon mbooleem jotaayu xam-xam buñ fay def imam Malik ak ñi muy àndal danañ ko teewe danañ ko teewlu ba mu jeex kon mu lay xamal ne mi ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay ak sa jàpp ak sa yëg ci moom di wax na rek bu ñu jógee ci yónnante yónnante ab sëriñ bi ñu wax ne sa Cheikh Sarr sànq dafa wax ne sëñ Mahamad Mbacke Abdoul Wadoud mu wax ci turu xalif général des Mourides waaye mu wax itam ci turu mbooleem këri diine yi fi teew ak association islamique yëpp loolu dafay mel ni su fekkee damaa toog ñu jox ma kàddu xalif général des murit kon jàpp naa ne képp ku ma fekk mu bokk ci acte diine yi dana valable nga dugg ci sama biir wax te dana sedd sa xol yaakaar naa délégation bi nga xam nag moom la ma sëriñ bi booleel maa ngi ciy jiital sëriñ naa Mbacké doyoli waaye it ma di la xamal ne sa mbokk sa wëllëre bii ci sama wet di sëriñ si di Maxtaar mu xalifa Baye sëriñ Baye Sidi Lamine Kunta moom it mën naa laa wax mu ngi ci biir délégation bi lu tax diggante sëriñ Touba ak maam bu waaye diggante Baye Sidi Lamine ak Touba waaye diggante moom mi ak Touba bu sëriñ bi toogoon sa Touba bu ko neexoon woo ko ba mu ñëw mu jabal ko fi te kon mu doy sëkk kon moom mi ngi ci biir délégation bi waaye délégation boobu itam Amath Saloum Dieng mi ngi ci biir mu teew fi nekk fi ndawu sa xarit Cheikh Mamadou Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir ak yeneen bokk yu jóge Touba yëpp mu ngi ci biir délégation bi ba ci suñu bokk yu toog suñ ginnaaw ñu jóge ci sa wëllëre sëñ Modou Kara Mbacké ñoom it jàpp nañ ne biñ dikkee te fekk ñu fi lu leen seen waajur wax lu mu leen yónni ci yow agsi na ci yow waaye ñu wax ne ginnaaw kàddu gi ci xalif général des mourides la jóge sëñ Modou Kara mi ngi si biir kon yitteem ci yow rek la doon fesal ak jàppam ci yow ak feddli war sa diggante ak moom ak fu mën a nekk moom la doon fe euh, feddli si moo tax njabootam gaa ngi nii sama ginnaaw noonu it lañ koy waxale mboolem association islamique yépp bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw nag ci guddi gi nga xam ne mooy guddi teraanga gi nga xam ne ki yàlla ruuse jullit yëpp muy seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam nga def ci waxtaan woo xam ne ni ma koy waxee at mu nekk rek moo di ne bi waxtaan wi jeex wax nga ne buñ ko tënkoon ci cinq minutes doy na man cinq minutes yooyu ma génn ko ci sa biir biiri wax ci lu tuuti loo xam ne sax du mat cinq minutes te doy na gàmm mooy lan mooy Issa Samte ku ni nga ko séddalee ak ni ko firee nga xam ne kooku euh, boroom xam-xam fi nekk boo leen xoolee xam ne ñii dafa mel ne mosuñoo xam lan mooy Issa Samte ku wérat Imam boo ko xoolee rek xam ne nekkatu fi parce que dimension bi kawe na boobu ak waa daara ji yëpp nag parce que daara ji ñi fi nekk ñëpp ay borom xam-xam lañu ci lii shérif doon wax sànq ñi nga tarbiyee mbooloo mi seen yar bi ñu am seen teggin yi ñu am waaye ñu ngi toogaale nag ak xam-xam bu leer nañu kon yow mi nga xam ne yow la yàlla baaxee ni ko shérif waxee teg leen ci seen loxo am lu ñu bëgg ci yow yàlla dimbali la itam nag ba nga leen koy joxe bil xikmati wala moom ay satal xasana loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ba ca des mooy allahu nuuru samawaati wal ard ba ca kaw kawkabu duruj bi ni nga ko waxee ci Seydina Fatima loolu doy na gàmmo waaye mu des ñaari baat alxawlu ak alkalaam lu ci nekk sëriñ bi ñetti mbir yi mën nañu wax ne doy na gàmmo

sëriñ bi ñu lay xamal ne taxawaay bi rafet na lool ndax balaa balaa safar di teru danañ ñëw wër dëkk ba lépp loo xamee ne soxla nañ ñu génneel ñu ko mursid du ca benn am benn tayel kon loolu il faut ñu seedeel la ko ci yittey directeur sëñ Babacar Ndiaye waaye ci taxawaay sa njaboot El Hadj Fall ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ñu mujje nag suñu doom di capitaine démb bi mu ñëwee di waxtaan ak man wax naa ko ne at mu jot danaa la sant mais danaa la soññ waaye ci biir soññee bi soññ mënut a ñàkk ndax li góor gi waxoon rek misaal bi mu joxe woon ci bu mu déggee ci waxin la kuy tari alxuraan tari bu rafet tari bu jub ànd ak maxaarij ruuf bu tege ci yoon ba góor gi xolam liw mu ne waa ana kuy tari alxuraan ju neex jooju doom ji àdduna ko man la bàyyi mu ne ko yaa ngi nab nabi daf koo nawoon waaye bi mu xamee ne doomam la rek mu wàcc ko parce que lu mu def xeeb na ko mooy li ñu dal ci moom itam ñu gën a amaat ci moom yaakaar li tax bër keroog alxames ci guddi ñëw naa fi fekke naa jotaay ba laaj na imaam Malik xamal na ma ne jamono yëpp ci loolu ngeen nekkoon muy daara joo xam ne ña fa nekk ay xale yu ndaw sax da xam ne ñii li yàlla bëgg ci ñoom def nañ ko ci ñoom te loolu rek moom solo waaye mu wax mu biig démb bi ñuy waxtaan kàddu goo xam ne daf ko wax rek jàll mu rëy ci man lool ndax daf ne ma ñun de jàpp nañ ne lépp lu ñu def bañ defee ne baax na ba dañu ci tagg bu ëllëgee dañ koy xeeb parce que dañuy defee ne tuuti na ci ñun kon nag kooku kon borom dimension la borom gis-gis la boo xam ne incha allah pap jëm daal fii nga bëgg mu àgg fa yàlla na ko sa doom mu àggale ci yàlla bu ko dara dopp xanaa di wax ne rek jotaay bii ñu toog tey te Serigne Cheikh Ahmad Tidiane boole woon ñu ko depuis quatre-vingt-dix-huit nga jàpp ko nag lool ma jàpp ko lool muy kóllëre goo xam ne moom moo ko moo ko fas jële woon ko nag ci Cheikh Abdoul Ahad tegaat ko suñu loxo ma di la xamal ne kóllëre googee de li mu jur ci ay njariñ muy jotaay bii am na suñu jotaayu yoof ba lañ waxoon ci biñu ñu defee table ronde boobu waaye man lay xamal nag jotaay bii de li mu jur ci ay njariñ bu ko war réew mi xamoon seenu cant ci yow du doy danaa ci joxe nag ay ay exemplaire yu néew rek moo di ne Serigne Cheikh daan wax ne bi mu ñëwee Touba wax na ne ñu bëgg lu baax ñëpp kenn xamugul sa morom. te ñu bëgg lu bon ñëpp gindikoo nañu bu ne maam El Hadj moo ko daan wax daat ca teg ne tiis na lool mag ñu ñëw di xeex loolu suñu mag ñëpp ba ci ñi ci mujj mu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké sëñ Ahmadul Makhtar ba ci sëñ Mountakha mi Cheikh Ahmad Tidiane yi dox ci nag bay ci waar bu yaatoo yaatoo yaatu ba àgg ci ne buñ ne woon tey murit ak Tidiane ngay tojante bopp nee na kenn du xas murit kenn du xas Tidiane yonente bi la ñuy attaqué directement la njabootu mi séeréer loolu nag jotaay bii lim ci nooyal fii ma toog di wax bu ma neexee ne la maa ngi lay jottali nuyoo ay cofeel yu du yu bàyyi ci murid yi waaye di la xamal itam ay nuyoo ay cofeel yu du jeex yu bàyyi ko ci al mustasidina wal mustasidati bari na ñoo xam ne mosuñ maa teg bët xanaa fii lay doon mosuñ maa jox loxo waaye fu may dox ak sama tànk muy Dakar muy Touba ga ma dëkk bu ma génnee faw kenn dana ma kar jox ma loxo di lox ne ma sëriñ bi dañ laa sopp bu ma waxee loolu rek ma xam li tax mu ne bu dañ laa sopp lool ngir ki ñu amul lu dul moom xam nañ si diggante moom nu mu toll moo tax buñ la gisee amuñu droit romb la muy Sénégal gépp nag partout man de xamal leen te ñoom ñépp nag yàlla ak cofeel gu mu am ci yow rek moom la ñu xool ci man sëñ Sidi Muxtaar mii loolu moo ko dal Thiès kon ñun naka jekk bërëb bi suñu barab la waaye àgg nañ ci foo xam ne nag buñ fi doon ñëw tey ñun kese danañ ñëw ànd koog yow ba mu jeex tàkk loolu daal cofeel yooyu nag nga baal ma rek ma wax ci ñaar ñaari njariñ yoo xam ne benn bi am na ay ay jamono xaw naa yàgg ay at la waaye dafa rëy te jotaay bee ko jur damay mas a ñëw gàmm bay génn di jëbbi am na ku ñuy wax inspecteur Babacar Dem taalibe Cheikh la mu woo ma téléphone ne ma waaw sëriñ bi man de maa ngi doon seetaan léegi Mourchid TV ba doon déglu waxtaan bi mais sama doom bi sama taw bi daal dafa dafa dafa aalu xamatul fu mu nekk nee ne mun ne ko papa mun ne ko pourtant kii di wante sama xarit la mu ne ko papa jox ma ko mu jox ma muy wax ne ma papa ma ne ko ma yow li nga def sa xamoo ko ne ko ah, lu xew mu man sa adversaire la war a ne ma ndeket demul noonu ma ne ko demul noonu nga ne kon peut-être kooku noonu moo am na ci ñépp léegi ñoo bokk ndey ñoo bokk bay cofeel yooyu bii yaa ngi wax ni ko mag ñëpp di dunde léeg-léeg nga xaw a sawara di nga àgg ci ne mag man naa am du wéram du yomb mais ñu lay ñaanal yàlla mi nga xam ne lépp ci loo xam ne nekk mu def ci yow moo gisa karaama boo xam ne da am wér-gu-yaram goo xam ne loo mas a jàpp ne dana daal mag mu dal la nga yëg ko yëg bu yam yàlla na ko suñu borom nasaxal bu ko nekkee mu def ko te damaa toog di ko ñaan rek ci sama làmmiñ mais ñi fi toog ñëpp loolu la ñuy ñaan te ñëpp nag bu ñaanee yàlla nangul leen kon na sa xel dal bu baax gudd fan lool wér lool mission bi ni ko Chérif waxe foo ko bëgg a àggale da nga ko fàggale incha allah am na nag mbokk moomu wax lu garaaw. démb mu seet ma ci résidence bi di wax cofeel gu mu am ci yow mujj mu ne ma maa ngi lay waate ci sëriñ Touba ne man Serigne Touba rek laa yaakaar bu ma deewante Touba lañ ma yóbbu du ma génn yoonu murit wante Serigne Moustapha Sy sopp naa ko cofeel gu toll ne billaahi fii ma toog di wax sëñ Moustapha bu demoon tey ba war fee bàyyi ko na ko na ma ko yàlla remplacé ma faatu mu ngi ci mbooloo mi loolu nag fa la cofeel yam loolu nag li la ko may jikko rek la mbaax rek la yiw rek la yàlla yàlla saxal yàlla na yàlla barkeel jërëjëf ñu ngi sant bu baax di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf euh, sëñ Mouhamed Mbacke Abdoul Wadoud xam naa ci programme bi balay maam di tijjil góoram gi dañuy jox sëñ Abdoul Aziz Sy Al Maktoum